Eh, mooy révélation yu doy waar yi nga xam ne nii kii di Yaye Fall voyante boobu nga xam ne dañ koy gis à chaque fois sur Télé Sénégal mu ànd ci Kifeuz def na ko ci Zénith ak ki nga xam ne nii mooy di Diop alors no comments nañ dem déglu directement ki nga xam ne nii moom moo nekk kii di Yaay Fall si plateau bi daal di ñëwaat si plateau bi Fatou Mbacke su ma nekkee kii plateau nga nga wax man du ma waxee sama bopp damay waxee ñi may wax loo may wax parce que ñooñu dañuy gis leneen ak leneen di ma wax may wax du ma tëb di waxee samay bakkan. maanaam say wax. lu ma wax mooy téere la ñoom du ma yokk seen wax du ma si wàññi lu ma wax rek dama koy wax. li may tàggatoo yow nag mooy ëllëgu réew mi yaay Fall lan nga ci gis. bëri na nañ defaraat réew mi. ci nan lañ koy defaree. maa la ko wax fii li ma lay wax nii xëy na peut-être di ngeen ko dégg barki sëñ Bamba Sidi Diop dina jàmbat problème mu nopp buy metti walla li ko jege te sax mën na nekk nopp wala baat bi ñaar yi. dina ko jàmbat balaa programme bi nopp buy metti wala baat barke alxuraan maa ko wax te maa ko gis léegi nan lay ci sëriñ lañ ko yóbbu def ko ko bu amut yal na ma yàlla rey. billaahi wallaahi wa taala Sidi Diop dina jàmbat bopp nopp wala baat ñaari dinañ ko ko def te sëriñ lañ ko koy defee. nit da lay topp nga yaakaar man bëgguma sax di wax commencé dinaa su ma commencé nag moom damay indi ay wax yoo xam loolu dana ko jàmbat balaa dem sëriñ. barki sëñ Fallou na ko jàmbat te dañ ko koy def dañ ko koy def loolu foofu man du waxantu fii. lu ma la fi wax bindal téere tax nit du ko dindi wax ji day guddee mais day fanaan si maay borom jinne yi te ko wedd foo ma yóbbu ma wan la lan mooy jinne yi. li ma la yóbbu xanaa keneen la. fii nii def naa fi lu ne si lu nit yëg ak lu nit yëgul xam-xam bu ñuul xam-xam bu leer du ma rey nit nag du ma. alors dégg ko kàddu yi nga xam ne nii kii di Yaay Fall def na ko nee na moom mootu Sidy Diop avant Zénith bi dina maanaam jàmmat li nga xam ne nii mooy baa bu métti et c'est normal bu nekk si répétition yi métti il jàmmat ko. wala sax nopp yu métti studio bu mu nekk ba fa nekk tamit il faut que tamit nga jàmbat ay nopp yu métti parce que tamit il faut que mu am ay ay si est-ce que loolu ou pas wala moom si wàllu mystique lay waxee loolu yëpp tamit de ko waxtaan si plateau bi alors Nana Rose bàyyi ma calme na tuuti am naa ndox Nana ñëwal <laughs> <laughs> ah allez Ouz. Ah. waaw si jàmm naan nga. Hmm. alors na nga déggee kàddu bi nga xam ne nii kii di Yaay Fall. wax na ko. xam nga eh, dina làmb ba làmb ay taatam ne lii moom moo ko. <laughs> ana waxkat. Mhm. dina wax ba làmb taatam ne yii du sama yoos mhm. gàtt xamuñ ko. pour mu ñëwaat les charlatans ay charlatantes yi di ñuy jaay gàtt gu moo tax xanaa xamoon ni nit ki dafa am fooy toll maanaam ut góor bu lay jege di sa jëkkër dafa baax. jigéen dafa am âge boo xamante ni boo ko tollee utal utal ku la tàkk sëyal sëy baal boo sëy da ngay jaaxal sëyal lu lay diriloo sëyal nga nekk nit lu leer laa lay wax sinon rek di nga indil sa bopp ay problème xamuñ gàtt man sama baat ca kaw buñ mënoon. mais amoon na jëkkër te terewu ko woon wax kanam. Eh, ah bien sûr. ok yaay Fall yaay Fall de fekk <laughs> naa ko. këram ba taay yéene yéene tudd ñii de man ñii yéene leen di tudd maanaam ñoom liñ sol ñooñu lañ doon danger ñu doon tas neen sëy yi yàq nañ ànd yi dëddale leen ndey ak baay maanaam yàq nañ famille ci xeet yi yàq nañ àndandoo yi mhm. ku mel ni Sidi Diop di waaj bis xel li ko yëngal dafa doy waar ku mel ni Sidi di waaj bés Sidi amul ñu dul ñi muy àndal hmm. boobu ban tey ñu koy taxaw di ko jàppale ba démb ñu def lu rafet dem ci kër Marie Yacine Sénégal ñëpp seen xol fiir sedd guy ñëpp kontaan di ko ñaanal ndam sutura asteranga nga war a am na yoo xamante ni bëgg fen la ak naa siiw walla nañ ma xam am na yoo xamante ni bu dee gis kat nga danga ko gis te ki nga yéene yéene nga ko xoolal mëpp ko boo koy defal sarax nga defal ko ko boo koy ñaanal nga mm. ñaanal ko te yàlla rekk tax waa nga dem ba su ma waxoo bu dee ñu ngi gis an Sidi Diop bi yow Sidi day répété day wéy par force nii lañuy ñuy nopp yi demal studio suba teel gam muy répété puqus la rëyu fi yenn rëy yi batterie cool ndeer gorong vent guitare solo guitare baas nga woy awkat nopp yi fii lay ñëwaat chaque jour yaa ngi répété baat par force la ñun ñii rek dañuy toog wax ba ci yàgg ne nii ndox naan nii nii nii xoola parce que suñ put day wow mm-hmm. parce que dañuy wax dañuy fen ay mënuñ ci la ñuy profité parce que gis nañ ni buzz bee ngi daw foofu ñoom of nañ leen croix déggatuñ leen Wally Seck Sidi Diop dem na fa neex na ñëpp a ngi wax ci loolu naa ci génn dem sama grain de sel bokk ci ngir ñu tudduma ci mm. jaru ko da ngaa ay defal mm-hmm. da ngaa mën defal parce que boobu ban tey mun nañ fi indi yoo xamante ne mu ngi fi fenn yi ñu fi fennoon daaw ak daaw jég mu ngi fi de ay kii dee na ak bu la dañoo waroon xaar dafa yéex ak kii ba ma gisee lii yooyu yëpp ay casa la fenn yu doy xepp la hmm. nen ñu dimbali Sidi Diop maa ngi lay ñaanal ci kattanu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mi nu bokk bis bi nga jëm yàlla na la ci yàlla defal ndam yàlla na la ci yàlla defal tawféex hmm. yal na la ci yàlla aar mhm. yal na la ci yàlla sàmm yal na la ci ku la yéene baat bu melti yal nañ koo jam ci put mhm. <laughs> Sidi ku la yéene nopp gu métti yal neen bëtt tympan mais pourtant am na am na ñu ne moom dafa ah, man ba léegi yéenay wax ci ñii ak ñooñ man déggoo dama concentré wu ci li may waxtaan ba ah, léegi de yéen yéenay wax ñeneen rek man ñi te man ñi teewluwuma leen sax barki Cheikhul Khadim bàyyiwuma leen sax xel bàyyiwuma leen seex xel gis nga nit boo mën mënee di gis di ay dangay dëkk ci ay château di dawal ay range maanaam fulow am na ñoo xamante ni nanaa dama koy faral di wax ñu naan damaa dëddu àdduna dëdduñ àdduna yoruñu te àdduna bugg leen ñoom ci boppam la àdduna gedd nan ñu may jàmm booy lu dul yàlla neen la taasukat bi sama mbokku géwél bi wax na ko lu dul yàlla neen a ginaari kenn nenu ma moomu loo ma sàkk loo ma munoo ci mën tus ba may yàlla bind fekkee woo. yàlla ba muy bind yaa yàlla bi muy dund <laughs> di wax. di def man amul ku may man amul ku may ragal. Mhm. barki Cheikhul Khadim xam nga ku ma am. Mhm. Cheikh du Kara Mbacké nooree ne ma doy na ma sëkk làquwaay. Mhm. doy ma sëkk wéeruwaay man sama àdduna ni muy demee lu ma am tàmpi man sama yaay daf may xas te boo duggoon sama néeg da may jéppi. xam nga xam nga xam nga fan laa dëkk. Mhm. Fatick man siin siin laa. macha allah. yor ay ay maanaam waxu waxuma ay maanaam ñoo xamante ni ay xàmb ak yeneen nga sama papa dafa ma naan dangaa dof ndax du ma ci dem. gëmmuma ko du ma tàkk du ma naan. Sëriñ Tuubaa dafa ne allahu xayru man shafaa wa qaddaa wa kashafaa min hujaani shifaa min kulli daa xadri ma gëm ko te di ko dund. gis nga lu gis nga nanaa lu neexul yàlla du la dal. Mhm. suñ borom xanaa xamoo ni dund doomu aadama yëpp ci 40 jours la ko bind ku ci nekk li nga war a dund sa vie yëpp suñ borom pare na ci ba teg classé. Mm-hmm. dëgg la law xil ma fuus falu suñ borom di dogalee am na ñuy gome am ñuy bind. Mm-hmm. dafa am ñuñ ko may ak ñuñ ko dul may. Mm-hmm. bërigo bu feesee du yëngu. dëgg la dëgg la tekk allez nana waaw mais. ah noo mais nag wax na lépp macha allah. bërigo bërigo bu feesee du yow xam lu tax ma ne la jox ko. Hmm. parce que xam naa fi mu toll nii ñooy bokk kaama nag moom moment yii nii. Hmm. est-ce que gis nga est wax. fu mu toog lay toog envoyé la ñu lay envoyé ñu duma la xam naa naa la loolu dégg moo tax mu ni non du ma si wax. naa yow lu xew di wax nga si. dëgg may dégg tey jii wax. man néew ma du ma wax de. yow yaa dégg ma ne du ma ci wax. et moom Ousmane. Hmm? mbokk internet yi àtte leen maak Momo da ngeen dégg ma ne du màcc. tamit yow yaa ko wax yow yaa ne no comment. Ah. dama ne la waa mais. waa mais nga ne ma no comment yow yaa no comment ni. gis nga nag kaay max la. yow nga ak Wally Seck ndekete. waa max la <laughs> gis nga yaay Fall mii. Hmm. dama koo xam. dama koo xam. kon moom aay na. Euh, loolu du ci wax. waaye moom xam na man na naa xam naa. kon aay la kon aayu. <laughs> non may laaj mais non non non damay laaj. aay la wala aayu waaye laaj yow yow ngay présentateur may présent gis nga sëkkatal gii nii nga nga may def nii. Ah. danoo koo xamante man non mais man man wax dama ne loolu xam nga ñoo koy def da koy def ñoom Sidi Diop ñoom Pawlish Mbaye ñoom ñooñu noonu. mais man man nga bëgg a sëkkatal man pour ma ah, wax. xoolal dafa naan ma sëkkatul ma la de ma question ma laaj. Hmm. xoolal. question total la. maanaam. oui ou non. waaw maanaam aay na. wala aay sa sa yoo xam nga ko. dem nga këram. je ne vais pas y répondre loolu kay jeexal nay wax du ma ci tontu. mais xam xam lu tax ma indi ne xam naa ko. Mm-hmm. lan moo tax ma indi ne xam naa ko. pourquoi dama lay wan ni la. Mm-hmm. dama lay wan ni la. Mm-hmm. moom du ma wax ci moom. du ragal. du question de dara mais li tax bi nga ne maa waxal ma ne la. na us na us wax. Mhm. ba pare parce que damaa xam ne ñoo fi bokk point de vue man laa man. Mhm. su ma jiite woon réew mi ñii laa fi njëkk a génne ñii moom damay tëj seen gémmiñ ba dootuñu wax. lan moo tax nga nga si génne. parce que bés la ñu ñii xamuñu dara. ok kon yaay dama ñii laa wax xamuñu dara. Ah, ba léegi man si la bokk waaw ah, man si la bokk wax nga ma. yaa may dégg sama ton sama réponse jox nga ko. ñii maay ñoom ñëpp. xamuñu xamuñu dara ba dara booloo jeex. Ousmane dafa wax lu am solo terminé ko. bërigo bu fees du yëngu. ñi xam ñi ngi ci seeni ruq di def te yàlla tax. l'Afrique a ses mystères googu noonu. Mm-hmm. a ses réalités du ma ko weddi. am na ñu yàlla mënal pire ñu mën seen xalima du laal suuf waaye ñu ngi ni mugg ak moom. Mm-hmm. waaye yow nga xaar ba waali astafurlaa. Siri Diop di waajal zénitam. Mm-hmm. nga ne dinañ tee baatam. fii waykat yu ci bari seeni baat day metti am nañu problème mu baat waykat yu ci bari dañu am problème mu nopp fii ku fi sa bopp mettiwul sa biir a ngi metti seetkat yi nañu bàyyi ngala ak naan ak naan non c'est-à-dire des des informations terre à nga xam ne man mi mënul dara sax mhm. man boo ma laajee ma ne la lii ak lii dëgg la naan ay euh, ñi nekk ci gouvernement ñi nekkoon ci gouvernement bi woon ah jamono jii ñu ngi ci guddi gu bët setagul mais loolu c'est clair comme bonjour. c'est euh, moom dafa yomb trop. pareegul ci loolu ne ne ne ne ne vi non man dama koy seetaan ay ree ma. lu wax si Viviane ne ni. nee na Viviane nee na Viviane na moytu na jug ci boppam. parce que ndam yi ñëw bari na mais daam lu koy gàllankoor. parce que séntu na ni parce que gis nañ ni Viviane boobaak léegi mi ngi gagné trophée ndam yi di ñëw mm-hmm. bërki Dembo Ndiaye frère am décédé xam naa mu ne nattu yaa ngi ñëw. <laughs> loolu si c'est man c'est des choses yoo xam ne boo ko laajee benn nana boo xam ne sax xamul pettaaw xamul tani xamul xortu gerte xamul seetee ci ndox xamul seetee ci suuf mm-hmm. sax mu ne la lii c'est vrai c'est ñu ñun Sénégal suñu Sénégal ñoo leen ñoo leen may loolu tamit. très bien ay euh, ku xees kee ku ñuul ki ku gàtt kee ku njool ki loolu rek moo tënk àddina bi te ñoom koo ci gis loolu lay wax Wally sekk de nangam dina ko dal Pawlish mbay de nangam Siri Diop de nangam di porox ndollu ci bësu doomu aadama yi di naxaale sénégalais yi et malheureusement li ma ci gën metti day am sénégalais yoo xam ne dañ leen di gëm di utiliser seen xaas di leen ko jox ñu leen nax. bien am na ci ñoo xam ne moom c'est des courtiers xam nga moom mi ngi koy wax nee na bari na fi sëriñ soo xam ne. lutteurs mhm. euh, yi ñu ngi leen di seeti ah waykat yi ñu ngi leen di. seeti te xamuñ dara. déedéet nee na ci moom la ñuy ñëw di fa mu leen di defar ñoom mu leen di jox. ah mais kon. kan moo ñu kan moo ñu. <laughs> ok <laughs> dañu may wax na dama euh, man dama jiite euh, woon réew mi wax dëgg yàlla ma am fi ndogal. Mm. ñii laa fi njëkk a génne. sa xarit ngay génne yow baax na. yow sa xay sa doomu ndey yaa ngeen xamante ngeen yow boo jëlee réew mi da nga koy génnee nanaan ah nga fal ko premier ministre sax wala ministre des charlatans wala des charlatans kon de réew bi yàq mais ngeen sa xay da ngay génnee alors alors dafa mel ni ñu ngi ci nag j'espère que émission amul 19 18 ñoo ngi dérapé lu métti métti alors nañ wax si nga xam ne mooy diggante ki nga xam ne mooy Adji Sarr ak nga xam ne mooy a